Aïcha nuyu nañ leen ziar leen jox leen seen wàccuwaay di leen dalal fii ci Dakar 24 di leen présenter émission bu bees tàq émission bu amul fenn di ëttu Sénégal ëttu Sénégal fii lay amee ci dakaar 24 ma ci ma di ci ànd ak sama jigéen xuuy yi waaw comme ni mu ko waxee rek ëttu Sénégal di émission bu bees tàq pour les jeunes ñu ciy invité ci suñu premier numéro Galas ñu gën koo xamee ci turu Lasga di un jeune tiktoker très talentueux buy bëggal sénégalais yépp donc euh, fii lay amee ci Dakar 24. ma di la wax loo benn affaire nag ñu ngi invité ku doy waar muy Lasga. Lasga li ñu lay waajal fii boo ko xamoon <laughs> yow ñëwoon rek incha allah. ayca jeex na tàkk